auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa mbokku groupe alquran ak sunna maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmm te di ko sàkkuwaat ci yéen nuyu nañ leen jox leen suñu loxoy xool de sant borom bi subhaanahu wa taala bu mu ñu mayee bu ñu mën a yëkkatiwaat suñu kàddu ci biir groupe alquran ak sunna di wax alhamdulillahi ala kulli xaal alhamdulillahi xataa ñu julli ci suñu sang bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam comme ñu koy defee chaque weekend bu jot wala chaque quinze jours bu jot ci biir groupe Alquran ak sunna seen émission jeeg ak këram Aïssatou Bathily madame Diako di leen ko andil ñu xawoon fee defaraar lool ndax léegi-léeg ndeysaan da ngay occupé ba nga xam ne pour nga def say itam sax day nekk problème léegi-léeg nga dem ba koy def am gàllankoor bu la tëyee ñu fi jéggalu bu baax bu ñu suñoon thème bi du tardé à tout moment rek dañ koy def ñu siy jéggalu bu baax a baax kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir groupe alquran ak sunna samay frère ak sama sœur yi macha allah maa ngi leen di nuyu lu bëree bëri donc waa groupe alquran ak sunna seen émission jeeg ak këram tey dafa dugg ci biir néegu sëy yi encore une fois dugg ci biir kër gi dugg ci ëtt bi macha allah dugg ci biir saal bi ne sarax rek daal di toog j'espère que nag di ngeen ma dalal ci biir saal bi macha allah bu ko defee ñu waxtaan rawatina samay mbokk julit yu jigéen yeeg di góor ñi tey dama andi benn phénomène du ma ne sax phénomène yàgg na mais léegi dafa gën a bëri parce que da ngay gis jigéen boo xamante ne dafay nekk ci biir néegu seem di sëy am benn doom am ñaari doom doom bi soo xawee nekk jànq comme ça am fukki at fukki at ak ñaar dañuy gis ne yow mi nga xamante ne jigéenu jullit bi nga nekk sa biir néegu sëy di sëy doo mag lool sa borom kër tamit nekkut mag voilà ndax góor moom tant amoo quatre vingt ba quatre vingt quatre vingt soixante dix ans sax magu màggetut parce que dama ne góor bi nga xamante ne foowewul boppam kooku du ma màgget du mësa màgget dafay nekk chaque jour normal yow mi nekk jigéen aussi boo nekkee jigéen bu mën a toppatoo sa bopp jigéen bu xam sa bopp jigéen boo xamante ne xam nga sa valeur doo màgget parce que dama naan màgget ci esprit la màgget ci doxalin la nit ki boo màggetloo sa bopp da ngay màgget boo boo defee sa bopp ne man màggetuma aussi màggetoo parce que màgget ci bopp la léegi-léeg sa nga gis xale bu ndogam ñaar fukki at di di di mag mag lu ba nekk mag boo ko gisee nga teg ko am 40 ans wala nga teg ko am 60 ans te fekk na amaana ay atam eggut noonu ndax bàyyeeku gi mu bàyyeeku ñàkk toppatoo gi muy ñàkk toppatoo boppam ñàkk bàyyi xel bu muy ñàkk bàyyi xel boppam mu nekk ay mbir yoo xamante ne yu doy waar la ñu gis ne suñuy ñenn ci suñuy sœur wala suñuy mag sax lay wax dañoo délaissé su ma ne dañoo délaissé mooy bàyyeeku bàyyeeku bi mooy am nañ benn doom ñaari doom ñett ba ñeent soit ay góor lañ wala ay jigéen lañu amaana sa doom am na ñaar euh, fukki at fukki at ak juróom wala sax fukki at ak juróom benn yow da ngay jàpp ne yow sëy bi yow waratoo koo gérer sëy bi yow waratoo koo yore sëy bi daal dafay mel ni da yow da ngay retraité ci sëy bi batale say doom sa borom kër ni nga ko daan toppatoo en tant que jigéen dootoo amati temps da ngay jàpp ne yow magal nga mag nga bu nekkee ne sa borom kër dafa war a añ sa doom bu jigéen dëgg la doom bu jigéen yaay moo koy jàngal ni jigéen war a nekkee ci biir néegu seen pour ba léegi bu sëy jee mais sa doom loo ko jàngal jàngal jàngal yow mi nga xamante ne jigéen nga nga nekk sa biir néegu sëy di sëy nekk ak sa borom kër am na ay mbir yoo xamante ne waruloo nangu kenn di la ko defal du doom du kenn yow mi nekk jigéen yow yaa ko war a defal sa borom kër ñu na ci jigéen ñoo xamante ne dañuy battale seen borom kër doom sa borom kër su liggéey jee ba ci ñëw ak sonnam ak coonaam bu la fekkee nga sol sa benn robe bu froissé toog ci saal ba amaana doo ko accueillir sax doo ko gàttandu sa doom bu jigéen ngay naan sa papa ñëw na jox ko ndox mu naan sa papa wàcc na jox ko ndox mu sangu sa doom bu jigéen mooy defaral papaam ndox mu dem sangu ji moo koy jox ndox bu mu naan bu heure lekkam jotee sa doom bu jigéen boobu noonu mooy dugg ca waañ ba defar lekk ba ñëw taajal ko papaam jox ko mu lekk doo contrôler sax xale bi sax ci ban bool la tibbal papaam wala sax ci ban kaas la jox papaam pour mu jox pour mu naan yow li gën teetoo ko góor gi parce que da nga naan man samay doom mag nañ yenn yi waratuma mu nekk ay njuumte yu rëy rëy yoo xamante ne ñenn ci jigéen ñi ñu ngi koy def voilà yow magoo yow 40 ans nga wala nga rek nga bàyyeeku yow nga retraité ci sëy bi sa borom kër dootoo ko toppatoo ci mu waree doo toog xoolati lekkam dootoo xoolati naanam doo xool sa borom kër fu muy tëdd xoolati sa borom kër lenn ci moom bu liggéey jiyee lijjanti woo ko doo ko woo xool ndax liggéey bi métti na doo ko xool ndax yaram yaramam neex na wala yaramam neexul te fekk ne góor bu amee ñeent fukki at ba juróom fukki at ci lay nekk ci digg ndëndëm wala sax juróom-benn fukki góor góor ñi foofu mooy nekk seen digg ndënd dañuy nekk kilifa macha allah yow mi nekk jigéen nag nga war a mat li nga doon xam ki la yàlla booleel nga war koo mën a téye toppatoo ko mais lan moo tax ñu jigéen ñi gaaw a retraité sëy yi dootoo solooti ba jekk dootoo defarati sa bopp dootoo léetu léetu gu jag seen néeg dara bu baax doo ko fa lal cuuraay bu neex doo ko taal xale yi daal ngay batale lépp xale yi ñooy defar sa néeg ñooy defar sa douche xale yi ñooy def lépp ci biir kër gi ah ba si ko góor ki sax léegi-léeg góor soxla soxnaam mais yow da ngay jàpp ne man sëy bi léegi magal naa léeg-léeg sax nga gis jeg jéeg boo day am doom bu dombu doom bu soxna andi ko ci kër gi fekk na yow do mag de mais yow comme yow sa doom bu tak na soxna andi ci kër gi rek da nga nan man yeen yi duma ko def yeen yi do ko def te nga nekk jigéen nga nek ci digg ndënd su ma nee sa digg jigen bu am ñen fukki at juroom fukki at wala ñen fukki at ak ak lu tek yow do do mag xala nga sha allah geto fi wala nga am juroom fukki at geto do topoto sa bop parce que gis nga jigéen am na âge boo xam ne boo fa tolloo maman boobu ngay war a gën a mën a jege sa borom kër maman boobu nga war a gën a defar sa bopp maman boobu nga war a gën a mën a toppatoo sa bopp samay mbokk jullitu jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir groupe alquran ak sunna ak sama papa allah. donc waa groupe alquran ak sunna émission jéeg ak këram tey loolu la ñuy fas yéene waxtaanee mooy sama mbokk jullitu jigéen ñi wala ñeen na ci sama mbokk jullitu jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk seen biir néegu sëy di sëy ndeysaan mel ni ñu wara mel mel sha allah jur ay dom amana doom yi bu ñu magee ba mag passé wuñu 18 ans wala bu ñu sax doom bu am 25 ans sax baxna mais ñom seen jëma bop ñom ñoy retraité seeni borom kër da nga nak ah man magal na man dama koy bàyyi xalé man mom magal na fekk na sa borom kër mama bobu nonu la soxla yow mi nekk jigen nga fess sa place del mama bobu nga war gëna mëna set mama bobu nonu nga war gëna mëna topoto sa bop en tant que jigen julit bi maman boobu noonu nga war a mën a toppatoo sa borom kër maman boobu noonu nga gën a war a jox sa borom kër gëddam ak àqam mais nga jël sa borom kër batale ko say doom wala am nga ay goro yu ndaw ci kër gi nga batale leen ñoom ñooy defaral paa bi lu ne te paa bi maman boobu noonu nekkul paa nee naa leen ku am 40 ans 50 ans kooku nekkul paa foo nekkee paa paa kay boo kay nekk di nga am 70 ans su sa sa nga commencé nekk paa ndànk-ndànk mais 40 ans wala cinquante ans ah wala 60 ans kooku magut. am na góor ñoo xamante ne dañuy am 60 ans te boo leen gisee doo leen sax teg ne am nañ 60 ans macha allah yow miy nekk jigéen nag nga war a nekk jeeg dëgg sa biir néegu sëy war a nekk jigéen ju fees sa place dell xam bu ñu bojjog bu ñu boo xam xam liñ la wax ak luñ la waxul. ndax ndax nee naa jigéen bu nekk ak borom këram ay ati at yow kooku war nga koo maîtriser war nga koo xam yow sa borom kër waruloo ko battale waruloo ko tayle say doom wala say goro yu ndaw yi nekk ci biir kër gi léegi-léeg kilifa nekk ci biir kër am manqué affection jabaram manke waxtaanu jabaram manke ay jaagir jaagir jabaram manke guddi jot bor soxnam defar néegam ba mu boy soxnam ñum tudd ci wetam diko ko manam de da koy manke weekend jot sa borom kër liggéeyul ah nga lalal ko ben matla bu noy tegal ko ci ay dara yu neex tegal ko njeginaay bu bu normal nga tok ci wetam diko ko ku góor ki day nam lolu lolu lepp nga daal di koy do dootoo ko defati boko wax ngeen ah man legi makna, legi mom amna ay dom ak ay sa talatuma yoyu talatoo yooyu te yow mi sa jëma bopp yow da koy soxla danga nga da nga war da nga war soxla sa affection borom kër comme sa borom kër nu mu soxlawee sa affection macha allah mais ñun jigéen ñi dañoo gaaw a bàyyeeku ci biir néegu sëy dañoo gaaw a delese wu gis nga nee naa leen jigéenu jullit bi seet nga war a doon chaque jour sa kanam borom kër demoon ba màgget laa la wax saa boo songoo ba solu ba taxaw sa borom kër gi bu la xoolee war naa am mbégte kontaante ndax ni nga mel mais nga nekk jigéen nekk si biir néegu sëy di sëy yow nga teel a jël sa retraite teel a jël sa retraite fekk sa sa borom kër mi ngi nekk ci digg ndëndam maman boobu noonu la soxla toppatoo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg macha allah ndax nee naa góor euh, suy am ña ñeen fukki at juróom fukki at ba juróom benn fukki at di yéeg di kaw si lay gën a soxlawee soxna bu nekk ci wetam si li moo tax ne ngay gis léegi-léegi góor dem ba am yenn âge yi takk soxna ñu naan pourtant kii da mag la mu takk soxna fekk ne góor yàlla moo ko bindee noonu dafa soxla jigéen bu koy toppatoo yàlla moo dëxëñ loolu ci góor dénk ñun jigéen ñu faw loolu ñu xam ko macha allah macha allah rabbi waa groupe alquran ak sunna seen émission jéeg ak këram ñu koy def chaque quinze jours bu jot ci biir groupe alquran ak sunna macha allah te ñi waxtaanee jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk seen biir ne sëy yi daal di bàyyeeku am na ñoo xamante ne yàlla may na leen ay njaboot comme ni ma ko waxee am na ñoo xamante ne sax amuñu ay njaboot yéen a ngi comprendre loolu mais nga nekk jigéen ju ju ndaw ndax ñeent fukki at jigéen ju ndaw juróom fukki at jigéen ju ndaw nga macha allah sa borom kër aussi bu dee dafa am ñeen fukki at ba juróom fukki at dafa nekk maanaam góor goo xamante ne nekk na kell faado nekk na góor gu gën a responsable daal mais kooku màggetul kooku ay balam jeexul macha allah kooku soxla na ku koy toppatoo kooku soxla na balaa muy wàcc kër gi set macha allah cuuraay gi neex gi di gilli macha allah mu ñëw fekk la nga sangu ba set def sa sañse bu ne mut macha allah def sa kol wala nga def sa tagal bu baax sa sang bu ñewé nga accueillir ko sha allah rabbi bu la nexé sax nga jël sa soro raba daal ko koy lalal da ko sang bi mon na la dem mon tay tay yag nga gisuma la won rek liggé ba ba wut lam sal ko tagal ko ay mamam ñun jigéen ñi nañu toppatowaat suñu borom kër yi bul ne man amna doom nek na jank rek man yéen waratuma yow yaangi def erreur di erreur bu rëy la parce que neexul nak goor nga tak sa soxna sa soxna dem ba ay yenn at rek mu daal di jël retraite dootu la toppatoo ci yow sa doom bu jigéen mooy lalal sa borom kër pour mu añ moom moo koy defaral pour mu ndékki su waree euh, tëdd noppalu ko sa doom jey lal lal ba amaana cuuraay ba sa xale baa koy def dëgg la comme ni ma ko waxee ci commencement bi yow mi nekk jigéenu jullit bi boo amee doom war nga ko jàngal ni jigéen war a ci biir néegu sëyam dafa am foo ko koy jàngalee mais ndey mbile bi nga xamante ne nag moom moo moom këram kooku su liggéey jee ba wàcc ñëw ci biir këram yow mi nekk jigéen loo jàppoon dong ko war a bàyyi rek concentré wu ci sa sang bi nag concentré wu ci sa xarit ndax nee naa gis nga jigéen sa borom kër mooy sa genn wàll sa borom kër mooy sa beneen partie su nekkul ci kër gi rek sa beneen partie ba nekk fa mais su liggéey jee ba wàcc rek da ngay mottaliku kon kooku tey nga ko góor a gën a mën a toppatoo bul ne man mag naa rek man dootuma toppatoo di sama borom kër mais jigéen du màgget màgget nee naa leen ci esprit la jigéen màggetaay ci esprit la nañuy toppatoo suñu borom kër yi fonk suñu borom kër yi jox leen seen gëdd jox leen seen àq ak seen yelleef mais góor ndeysaan nga nekk ci biir kër gi sa sa soxna talatu la talatu la bu waxee na ne man magal naa man yéen nii moom waratu ma ba yow sa borom kër li la warloog moom dootoo ko defati ah doo toppatoo sa borom kër macha allah toppatoo ko surtout boo amee sens say doom teel nañ màgg fekk nañ ay soxna indi ci kër gi ah too doo dootoo toggati amaana dootoo yekkati amaana ñoom ñooy def lépp yow kay war nga mën a am temps boo xamante ne da nga koy concentré ci sa borom kër léegi-léegi sax nga ne xale yi tey moom du leen dugg ci waañ ba tey man maay dugg togg yëngal sa ba mu baax ndax màgge too di ah quarante ans wala nga benn cinquante ans loolu màggetoo waaye nga am benn juróom fukki at rek wala juróom fukki at ak juróom rek yow nga ne màgget nga sa borom kër guddi day jot soxla boppam bu la tegee loxo nga teggi ko ah te ke góor comme ni ma leen ko waxee góor buy gën a mag di gën a soxla soxnaam ci wetam yow mi nekk jigéen aussi maanaam jigéen suy gën a jël âge bu nekkee ci biir néegu sëyam di gën a boppam di gën a jege kër këram di gën a xam moom mooy ban genre jigéen jigéen da ngay gën a taar da ngay gën a rafet da gën a belli macha allah da ngay gën a taar da ngay gën a belli ceeb yu baax yi jigéen ñi di utiliser digg jëggawe yu baax yi jéegi di utiliser di toppatoo seen yaram yi di toppatoo seen bopp ah di xeeñoo lu neex macha allah yow mi nekk jigéenu jullit bi nga xamante ne yaa ngi sa biir néegu sëy di sëy yow loolu yow daf la war té la war di parce que légui la nga gis jeet bo xamné day nekk ci bir kërëm amna 30 ans de mariage 35 ans ba 40 ans de mariage mais sayé boko gissé da ngay contane parce que da ngay xamné ki foyewul bopam da ngay xamné ki bayiwul bopam ma sha Allah mais sama mbokk julit yi jigen ñi nga xamantene ño nekk ci bir groupe alcorane ak sunna ak euh, thème bi fep fu mu mënti dem ba ci goor ñi nga xam dañ may déglu légui légui goor nekk ci bir neegu sem di sey du am banex parce que nekk na goor nekk kilifa deug ma sha Allah bu defee grand boubam ba génn rek nga contane wala bu jalla jàllaabeem rek mu contane mais amul soxna suko taxaw amul soxna suko topato parce que lan ko ku jigen ki jël na retraite so mané jël na retraite moy goor jigen bi nga xamné dal commencé na jël âge rek mu daal di bàyyeeku nag jàpp ne moom na japp né mom mère la mom waratu ko def te yow ya wara gëna défar bam baax yow ya wara gëna défar bamu baax topato sa bop machallah di sangu ba sét di xéñu neex yow sa néeg kenn waru maanaam sa néeg dafa war a mel nu ma war a mel sa saal mel nu mu war a mel macha allah ah surtout boo amee ay doomi jànq yoo xamante ne xëy na mën nañ la dimbali mais nag seen papa nag bu ne asalaamaaleykum ba dugg ci biir kër gi yow mi nekk jeeg yow mi nekk sama yaay yow mi nekk sama mag aloo ah, jàppoon nanga ko bàyyi nag concentré wu ci sama papa nag concentré wul ci moom macha allah toppatoo ko bu dara manqué voilà mais gis nga négligé bi nga xamante ne ñenn ci jigéen ñi jiitu ci ci kër ñi ñu ngi koy def moom mooy waral léeg-léeg góor xolam du neex moo taxit léeg-léeg ngay gis góor soxla ku koy toppatoo mu dem jëli keneen andi bu ko defee ñu naan waa paa bi dafa dem takk jabar fekk du paa soxnaam moo ko toppatoowul nu mu ko war a toppatoowee gis nga góor fii à mesure muy nekk ak soxnaam di gën a soxla ku ko toppatoo di gën a soxla ku koy bégal di gën a soxla ku koy nabb nabbee di gën a soxla kuy kaf ak moom di ree ak moom parce que mbokku jullit te jaamu yàlla amoo retraite bi amul retraite à tout moment rek da ngaa war a bégal sa borom kër voilà chaque jour nag léegi-léeg nga nga wax ñu naan ah Sénégal moom dañoo jàpp ne jigéen rek moo war a bégal borom kër non non bu ñu nee jigéen dafa war a bégal borom kër maanaam responsabilité yi gën a rëy ci sëy yàlla daf ko teg jigéen donte ne li ci ëpp sax góor moom moo ko yore mais yàlla moo moo moo jiital jigéen donte ne góor mooy kilifaam mais yàlla dafa jox jigéen ay poste yoo xamante ne joxu ko góor loolu moo tax tout le temps bu ñuy wax ci sëy di gën a ñaax jigéen ñi pour ñu sëy parce que quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci sëy bi jigéen moom moo ko yore jigéen moom moo ko yor kon nag ñun jigéen ñi war nañoo delluwaat suñu xel ci yàlla gën a toppatoowaat suñu borom kër yi léeg-léeg nga gis góor boo xamante ne juróom fukki at la am wala juróom benn fukki at la am boo ko xoolee nga xam ne kii macha allah góor dëgg la xale bu ko am boo ko toppatoowee mu belli ñaata kilifa lañ fi gis seen jabar yi négligé leen xale bu ndaw la ñuy gis takku ko xale bu ndaw ba toppatoo paaba ba paaba mel ni xale ñu na laay ndekete paa bi nii la mel fekk toppatoo la amatu woon mu tasante ku ko mën a toppatoo kooku toppatoo ko paaba de delluwaat jeune parce que mag magul juróom fukki at magul juróom benn fukki at magul fekk ca toppatoo bala la ñuy toppatoo suñu borom kër yi jigéen doo jël retraite man dama kontur jigéen sa borom kër liggéey léeg-léeg sax mu nekk jigéen boo xamante ne magul noonu dafa teel a sëy sëy na bu muy am 18 ans wala bu muy am 17 ans yow booy am 30 ans wala booy am 35 ans di nga teel a am doom bu nekk jànq nga daal di jël janq bu batale ko sa borom kër fekk na sa borom kër du mag noonu yow yaa ngi am benn 30 ans sa borom kër am benn 40 ans nga am doom bu am 18 ans wala 19 ans yow sa doom moom mooy defaral sa sa borom kër mu lekk. su waree sangu ji moom moo koy defaral mu sangu lépp lépp lépp xale bi ngay battalee baayam daal yow nga jël say tànk teg ko wala xew bu nga dem fa programme bu ne nga defan ramdaraan te yow li la warloo si sa biir kër sa diggante ak sa borom kër doo ko def kon jigéen ñi ñu bàyyi waat xel loolu bu baax xam ne say kenn du ci retraité nee naa jigéen fur et à mesure ngay gën a nekk ci biir néegu ngay gën a mën a toppatoo sa bopp nga war a gën a mën a belli nga war a gën a a coquette nga war a a mën a taaru macha allah. kon waa groupe alquran ak sunna comme ni ma ko waxee woon sama commencement audio bi samay mbokku jullit yi jigéen ñi ñu góor ñi nga xamante ne ñu ngi may diglu nga nekk jigéen nekk sa biir néegu sëy di sëy amuloo dudul benn ñeent fukki at wala ngam juróom fukki at sa borom kër am ay juróom fukki at ak lu teg wala juróom benn fukki at ak lu nga nekk ci biir kër gi macha allah soit yaa nga nekk sax imaam wala nga nekk benn oustaz boo xam ne macha allah wala sax nekkuloo imaam nekkoo oustaz mais nga nekk ci koñ bi nekk kilifa nekk sa biir néegu sa biir kër nekk kilifa jur ay doom macha allah nga nekk ak sa soxna ci biir néegu sëy sa borom kër sa soxna négliger la. sa soxna daal lay négligé du la bàyyi xel toppatoo bu mu la war a toppatoo du la ko toppatoo mu nekk ay erreur yoo xamante ne ñenn ci jigéen ñu ngi koy def te erreur bu catastrophique la erreur bu rëy la boo xamante ne ñun jigéen ñi dañ koy def te duñ ci bàyyi xel. nee naa leen gis nga yow mi nekk jigéen bi bi ngay séesi si kër gi kenn neewu la woon ne sa doom bu demee ba nekk jànqkat yow da ngay jël congé sa doom moo war a jël relève bi non du noonu sa borom kër googu tey la gën a soxla nga toppatoo ko. ku jigéen kooku ku xaw ma ku góor kooku tey la gën a soxla say jaagar jaagari tey la gën a bëgg say waxtaan tey la war a gën a bëgg tey la gën a bëgg nga jege ko yow tey nga ko war a gën a jege waaw yu neex yi nga daan defal tey nga war a yokk sa loxo waroo koo teggi nee naa leen jigéen fur et à muy jël âge muy soxla borom këram ci wetam yow miy nekk góor aussi fur et ngay jël âge ngay gën a soxla sa soxna si sa wet te gis nga góor am na fu muy toll ndeysaan day soxla soxnaam ci wetam day soxla soxnaam ci wetam toppatoo ko ba surtout ci biir néeg bi gis nga jigéenu jullit bi sa biir néegu sëy su jaaree yoon biir néeg bi su jaaree yoon doo màgget ku góor gi aussi du stressé wu macha allah parce que ca toppatoo ba la ca toppatoo ba la xool bu baax sa borom kër fu muy tëdd dara yu ngi koy lalal naa yu ngi koy tegal façon cuuraay bi ngay taal parce que góor aussi bu commencé jël âge aussi voilà yow mi nekk jigéen ma maanaam mature nga gën nga xam àddina nekk nga jigéen dëgg fees nga sa place parce que ku am ñeen fukki at juróom fukki at ak lu teg ñeen fukki at sax dama naan kooku xale la mais ku am juróom fukki at wala juróom fukki at ak lu teg kooku am na expérience kooku ku am expérience la kon kooku warul négliger boroom këram kooku moo war a gën a mën a toppatoo boroom këram nag parce que kooku xam na lépp macha allah xam na lu bëree bëree macha allah kon suñu papa wala suñu nijaay yi macha allah rabbi donc dañoo soxla soxna yi di leen toppatoo góor dafa soxla soxnaam di soxnaam di ko gën a jege di am affection ci moom parce que gis nga jigéen dafay taxawee côté bu ne jigéen war na taxawee palaasu yaay ku góor ki su soxlawee yaay gis la su soxlawee bàjjan gis la su soxla wee tante gis la su soxla wee xarit gis la su soxlawee maam gis la bu soxlaa soxna yi tamit nga fees sa place del kon ñun jigéen ñi nañu bàyyiwaat xel ci suñu bopp rawatina suñu yaay booy yi nañu bàyyiwaat xel ci suñu bopp bul ne man am naa benn juróom fukki at wala am naa juróom fukki at ak lu teg rek nga ne man daal léegi jeexal naa samay bal jeex na dootuma sonalati sama bopp non non non non maman boobu noonu nga war a gën a takk sa sër ba mu dëgër maman boobu noonu li liñ naan maman boobu noonu nga war a gën a mën a fëgg sa dënn sa caq daal di yëngu rek nga daal di war a gën a mën a toppatoo sa borom kër nag ndax ñu papa yi suñu nijaay yi macha allah rabbi dañoo soxla sox ay soxna yi leen toppatoo waaye mënuloo nekk kilifa ci kër macha allah ngay dem liggéey wala sax retraité nga danga doon liggéey retraité nga yaa ngi toog ci kër gi yow ñu négligé la daal toppatoo gi war dootuñu ko def ci yow hmm, dootu dootuñu la jox ay yére yu baax nga di sol dootuñu toppatoo say tànk ak say loxo dootuñu la jox nga lekk ba suur dootuñu la jox nga naan ba màndi affection bi nga soxla ci sa soxna dootoo ko amati sa soxna bu xëyee rek kolu na wala sol na benn grand boubam rek daal di dem yoonam fekk na yow yaa ngi soxla sa soxna sa wet soxla ku koy waxtaanal soxla koy kafal soxla koy reetaanal soxla affection daal wala mais gis nga am na góor ñu bëri bëri bëri ay ñenn ci kilifa yu bëri ndey ndeysaan dañuy dox di dem nii rek mais bu bëggatuñu seen biir kër yi dara dara dara ndax seen soxna yi faata nañ leen négligé nañ leen lijjantewuñ leen ah sama nijaay de génn na sama nijaay de lii sama nijaay de laa ah moom da amul problème boobu moom de lii moom de laa fekk soxna sa borom kër mi ngi soxla sa affection mi ngi soxla nga toppatoo ko négligé paa bi hmm? léegi-léeg nga tasanteeg paa boo xam ne ci ci mbedd bi wala du sax paa boo ko gisee da ngay xam ne kii du mag mais dafa ñàkk toppatoo ñàkk toppatoo doo ko contrôler doo ko bàyyi xel doo ko xool kooku tey ju tasante tey jii koo xamante ne macha allah dafa pare lool kooku bu ko récupéré da ngay ñàkk sa borom kër ndax léeg-léeg nit dem ba toll si benn moment bi nga yaakaar ne yow sa borom kër kay moom si fini dootul xoolati keneen fekk dafa gisul rek lu fees bëtam bis bu gisee lu fees bëtam mu xam ne kii man bu ma duggee ci moom sama aljanna fa lay jaaree daal di tàkk rek mu dugg nga daal di wayee di nag donc nañ ci bàyyiwaat xel bu baax. toppatoowaat suñu papa yeeg suñu yaay yi toppatoowaat suñu nijaay yi ba ci ba ci góor ñi aussi léegi-léeg jigéen nekk ci kër commencé jël âge rek yow mi nekk góor ku góor ki doo toog ko xoolati ndeysaan ba ci sax ba ci sax jigéen ñi léegi-léeg nga jigéen bu nekk ci kër di sëy ay at sëy na vingt ans de mariage wala trente ans de mariage ku góor ki day am ba benn maman rek day naan ah sama jabar ji de màgget na man léegi soxlaatul yenn yi ci man soxlaatul yenn affection yi ci man nga daal di soxna soosu su dee da am ay soxna yu bëri ci ñooñu ngay gën a féetewoo ko moom ay àqam ak ay yelleefam doo ko ko jox li mu soxla en tant que jigéen ci watu borom këram nga dag nga dag lépp te loolu àq la ku jigéen ki di dund loolu ci biir kër gi di ko souffrir di ko ngungunee di ko wax ci suuf muy am lu ko métti xolam di naqari te yow yaakaar nga ne comme ku commencé naa jël âge rek soxlatul yenn yi soxlaatul dara su dee da am ay yeneen soxna yu ndaw si ñooñu ngay gën a féetewoo négliger ki nga xamante ne amaana moom moo la jural say doom dëgg la commencé naa jël âge mais waru loolu warul tax dal ba àq ak yelleef bi nga xamante ne war nga ko ko jox ba doo ko ko jox moo tax léegi-léeg ngay gis jigéen boo xam day nekk si biir néegu sëy di sëy mu màgget te màggetam jotul ndax lan borom këram bi nga xam ne moo ko war a jàppale moo ko war a soutenir moo war a taxaw si wetam moo war a nekk ci wetam ci côté bu nekk nu ko war a taxawee taxaweewu ko noonu kooku di souffrir ba ba heure màggetam jot te warta màgget heure boobu kon nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax ne xam ne sëy du foo sëy jaamu yàlla la gu rëy la jigéen ñi dañoo war a gën a mën a sëy parce que ay jàmbaar lañu mais góor ñi aussi tamit dañoo war a dimbali jigéen ñi ñun ñëpp dañoo war a jàppalante nag bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax suñu borom kër yi ñun ñi nga xam ne ay jigéen lañu voilà bul ne sa man bul ne man am naa ay doomu jànq rek waratuma takk ci feer yi rafet yi waratuma woodoo ci fer yi baax yi ah te te te nga nekk sama pàpp ci biir kër gi nekk ak moom ci biir néeg bi cuuraay ngongo yu neex yi tey nga ko war a gën a mën a taal daraay baax yi toppatoo sa bopp ah yow sa ma papa chaque jour bu la xoolee rek daa war a bég di kontaan day naan waaye yow ndakate man sama ma sama ma ki ma takk ba léegi miis la voilà waaye sa sa borom kër bu la xoolee xolam jeex ndax bàyyeeku gi nga bàyyeeku doo too toppatooti sa bopp hygiène de vie bi nga war am doo toog amati hmm? maanaam affection bi nga ko doon jox doo too ko joxati loolu loolu rek day tax bu góor ki day gën a màgget yow mi nekk jigéen aussi la même chose nga nekk sa borom kër macha allah nga soxla sa borom kër sa borom kër négligé la ah nu mu doon kafe ak yowal nu mu daan reetaane ak yow nu mu la doon waxee ay wax yi neex lépp daal di wàññeeku donc da am lu la métti day day def benn souffrance boo xam ne ci nit ki ay problème lay lay andi. donc seen émission jeeg ak këram ci biir groupe Alquran ak sunna euh, seen sœur seen waxtu yi seen grande sœur de doon leen ko présenté macha allah rabbi donc seen émission jeeg ak këram lii la woon mooy ñenn ci jigéen ñi nga xam ne dañuy nekk si biir néegu sëy di sëy commencé jël âge rek daal di ba toppatoo bi nga xamante ne moom lañu war a toppatoo suñu papa yi suñu nijaay yi day wàññeeku bu baax a baax a baax wala sax bal bi daal di tourné ñenn ci góor ñu négligé seeni soxna ndax lan sa soxna xëy na am na ay doom doom yi commencé nañoo nekk jànq bu dee ay góor la nekk nañ ay maxam maxambaane wala bu dee sax eh, eh, tool lañ sax si takk jabar takk nañ ay jabar nga jàppaar nga yaakaar na yow sa jabar daal comme am na ay njaboot ba njaboot yi amaana am nañu am borom kër wala am nañu ci takk soxna rek nga yaakaar ne yow daal da nga war a retraité bi ku jigéen ki soxlatul sa affection wala soxatul sa sa amour fekk ne loolu erreur la tey la gën a soxla sa amour tey la gën a soxla sa affection tey la gën a soxla sa mbëggeel ci moom yow mi nga xamante ne itamit jigéen nga sa borom ko tey la la gën bëgg tey la gën soxla sa affection tey la gën soxla say wax yu neex tey la gën soxla say jaagar jaagari tey la gën a soxla sa set sa bëgg sa bopp macha tey la gën a soxla sax léegi-léeg nga dugg ci waañ togg ba mu neex ne ko sang bi tey man maa dugg ci waañ bi toggal la ndax nee naa jigéen bu am juróom fukki at du mag jigéen bu am juróom juróom benn fukki at sax tam du mag macha allah donc te ñun ci yoon la ñuy xool ci leen ci yéen la ñuy roy donc da ngeen a war a taxawee noo xamante ne ñun saa bu ñu leen gisee ñun seeni doom dañuy bëgg dañuy kontaan kon samay papa ak sama yaay yi daal gën leen concentré waat ci yi xam ne sëy du màgget jigéen chaque jour seet bu bees la war a doon ci digganteem ak boroom këram sa borom kër saa yi su la xoolee rek bu la jàkk ci ay bët daa war a kontaan euh, voilà mu nekk mag mu nekk ndaw ba voilà nu mu tëddee sax lu jëm ci wàllam bàyyeeku bi sax mu ngi ci côté mag ñi mais ba ci ndaw ñi sax am nañu. xam naa ne dinañ defaat beneen partie boo xamante ne dinañ waxtaan ak ñenn ci jigéenu jullit ñi nga xam ne ay ndaw lañu macha allah luñ ci ay at yi am ñaar fukki at la wala fanweeri at. nekk seen biir néegu sëy yi rek daal di bàyyeeku daal di négliger seen bopp ba temps bi nga xamante ne moom la ñu war a jox seeni boroom kër wala toppatoo bi nga xamante ne moom la ñu war a toppatoo seen bopp duñ ko def ndax bàyyeeku loolu lépp dinañ ci ñëw incha allah ci biir groupe alquran ak sunna seen émission jéeg ak këram donc lépp lu jub ñu xam ne borom bi la subhanahu wa taala lépp lu dëng nga xam ne jàmbu xeebu bu xamul dara rek la mais li may wax sama papa rek moom nañu téye suñu suñu suñu yaay boo yi voilà téye suñu umpaañ yi macha allah voilà suñu umpaañ yi aussi ak suñu yaay ak suñu tante ak suñu bàjjen yi ñoom aussi nañu toppatoo suñu papa yi parce que suñu papa yi duñu ay màgget ay ndaw lañu ndax nee naa juróom fukki at ak juróom benn fukki at du mag donc kooku dafa gën a soxla affection dafa gën a soxla amour soxla mbëggeel soxla jigéen joo xamante ne macha allah voilà macha allah donc euh, seen émission loolu la woon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa